et l'objectif mooy won nit ñi lan la CCBM di liggéey te loolu bu leen taxaw ci se ci jour yii di ñëw trois jours yëpp am na ay panel yu fi am fii y a de l'événementiel ngeen ñëw xool les débats yi ñuy def ak li ñuy def lépp pour que au moins ñu man di xool ci expérience yi nga xam ne nii moom lañ fi def ak jeunesse bi CCB mi ngi ci secteur yu bari da koy développer dana fexe ba nga xam ne ni secteur yooyu dana gën a développer ak yeneen secteurs yu mu war a dugg léegi nag li muy ñaan rek mooy l'ensemble de la jeunesse ñu jàpp ne tout est possible nañ avancer nit ki bul wax dara ne lii mënut a da ngay jéem ba sës bu sësee ba sës ci miir bi nga jéem a bëq fëtt miir bi sax génn bu ne sës naa ci miir bi da ngay bënn miir bi nga dem et en même temps tamit nga essayer ba nga xam ne tamit li ngay def lépp da nga ciy def engagement ak professionnalisme e en même temps ñuy demander lancer message encore pour le gouvernement pour que mu gën a jàppale secteur privé le premier ministre wax na ko nee na croissance baax na produit intérieur baax na mais si day génn ci biti wala dañ koy exporter loolu mooy dangay dëkk ci réew moo xam ne nii dafa riche mais ñëpp dëkk ñëpp dañoo ñàkk te Sénégal buñu yeexee ci foofu lañ jëm dëkk bi day am xaalis ku fi dikk yaakaar nañu jeexaluñ dara mais nit ñi ci seen bopp duñu am dara parce que dañuy vivre ay situation de pauvreté on peut être riche et pauvre riche et pauvre mooy nekk toujours ci tension soo nekkee ci tension mooy tu es riche mais tu es pauvre. génn premier ministre ah loolu y' a pas de problème danañ ko non non ñu ngi ci sax am nañ seen seen boobu immobilier et am na suñu.